ami amul parrainel Benoît bi amul parrainel ki am mélange mais ça ne se mhm. passe pas moo tax ma ne mhm. richesse ak pauvreté fii kontaan nañ soo wecc waaw ñu ngi solo te Benoît dugg na ci point bu bu sensible boo xam ne ñun ñëpp sénégalais dañ koy dund amaana c'est pas de tout le monde même bu dul du même bu dul ci waykat yi rek du ñëppay doxalee noonu mais franchement la majorité loolu la ñuy def. dëgg la Sophie damay commencer alal ndénkaan la loo mënti am si àdduna ndénkaan suñu borom la du sa ngóoro du sa mën-mën du sa kàttan du sa dara yàlla moo lay ndénkaan parce que nit magasin wu yàlla la aujourd'hui damay am habitude di wax que la richesse n'est rien si elle n'est pas partagée mi ngi sama plateforme yi sax c'est un message bu may bind souvent parce que alal boo xam ne pour yow kase la nga denc ko ci compte bancaire yi pour yow kase di ci dund yow kase loolu du richesse richesse balaa muy nekk richesse dëgg mu jëriñ la jëriñ sa askan ba jëriñ ñu dul sax sa askan donc man su figee c'est ce que j'appelle la richesse mais on est dans un pays boo xam ne pauvreté fatalité la papa mm-hmm. te ñàkk feebar la fi mm-hmm. fii ñàkk feebar la fi da nga gis ñu ñàkk di dundee góomu xool ba xëy génn àddina te teguñu ko seen bopp nag Benoît mi ngi xa wax ku am loxo bopp tàng am nañu ko fi am sax di fóot ba dee pàppa billaay Benoît di fóot ba dee boot seen njaboot mais c'est que nag mbind moo grave on est tous des croyants xam nañ ne yàlla lu ko soob lay def ci àdduna nit juddu na ak cuillère door deful dara dafa juddu rek doon doomu diw am alal judul jeex nit di liggéey chaque jour marchand ambulant yaa ngi fi ñeneen ak ñeneen fi millions yi xale boobu am ci compte bancaire sax amu ko yàlla ñëw na foofu mais dama ne dëkk bi nga ñàkk fi feebar la mais la pauvreté du fatalité loolu waaye ñàkk yi laa ko yox du fatalité de la pourtant démb da doon wax ñàkk démb dañ fi doon tam dëmm rek nit ndax ngeen baal ma ci waxu kii nitu guddi ndax ñàkk amoon na démb wala amul démb fan ma continuer démb nit génn na àdduna ndax dafa ñàkk rek nag mhm. lu ñëw ñu sëf ko ko lu ñëw ñu sëf ko ko lu ñëw ñu sëf ko ko ba àddunaam yàqu njabootam topp ko ba ci sëtëb sa taatam yi moo tax ma lay wax ne démb lépp baaxuloon woon su fi ma revenir ci aujourd'hui ndax moom fi toog a toog bu papa ñëwaatee xëy na dina si ñëwaat am beew ñàkk xam yàlla la ndax déséquilibre bi am ci diggante nit ku ñàkk ak nit ki am c'est pour qu'on se complète yàlla am na doole joo xamante ni bu ko neexoon mayaa mu def ñëpp am mais dafa def ñi am ñi ñàkk xam nga pour lan la woon pour que ñi am mën a dimbali ñi ñàkk c'est aussi simple que ça mais doomu aadama ak dundinam day dem di dem di dem ba mujj fàtte yàlla ndax am na ñoo xam ne dañuy am alal sax papa ñu yaakaar ne dañoo fàtte euh, àdduna mm-hmm. dëgg la de dañuy am ba fàtte yàlla fàtte ni ñoom ñi ngi ci monde bi seen alal mooy seen lépp te mooy seen priorité dafa am lu ma noté woon di wax ni richesse du li nga am ci compte bancaire yi pour man parent bi gën famille bi gën mooy kiy defar mbokk mooy ki xolam rafet pour man laa richesse n'est pas dans les comptes bancaires elle dans le cœur te lu ma gëm la kii dimbali mbokk loo am am am man Sophie Gueye te sa xol rafetul considéré wu ma la mm-hmm. noo mënti toll nag ak koo mënti doon nekkal milliardaire bu nit ñi di daw ci ginnaawam. considéré wu voilà la considéré. Ah, parce que dama gëm ne loolu di richesse. am na ñu fi ne amuñu dara mais fu mbokk xotteekoo ñooy ñaw. billaahi pourtant léegi ñu bëri ñu bëri tamit considéré am na ñoo xam ne. Mm. seen xool dafa set huit amuñu dara mais mm. problème bu am ñoom mm. lañ koy confier te ñu ut ci solution. duñu yàq mbokk encore une fois pour man loolooy loolooy richesse. duñu xas mbokk. encore une fois loolooy am richesse ma ñëw taxaw ci waay am yi waaye am yi da nga ciy gis ñoo xam ne tey yàlla da leen di may nombal ban du ma tudd nombal tànk du ma tudd ndax bu ma catégoriser coow mën na am mm-hmm. daanuñu woon nekkuñu woon dara mm-hmm. dangay dem sax ci seeni bërëb di fa dimbali ay nit ñuy tudd tër nit nit ki fii la juddoo mm-hmm. nga dégg kook ay milliards mu war a dem goxam defar ko on parle de milliards ah waxuma ki ñuy yaakaar ne dafa am dinaa ci ñëwaat mais ki nga xam ne dafa am ba ñëpp xam ne dafa am mu fàtte fa mu jugee ñu teg ko fan ndax alal day formaté nit ndax alal day tax nit fàtte déedéet ndax alal du du laal dara ci sa yar yàlla na ñu yàlla musal ci baadoola nag boo koy dégg di ko wax mooy ki am te fàtte démb man moom laa yaay baadoola te nag démb baadoola waaye ñàkk nañ ko doon woowee pap dina ci ñëwaat hmm. mais pour man mooy ki am fàtte démb mën nañ leen ci lim suñu genre yi nga xam ne dañuy def tour du Sénégal di dem ci ay coins yoo xam ne buñ ne la diw fii la soqeekoo Sophie da nga naan munul nekk waxuma ci tour de waxuma ci ci Safia nga xam ne mën nga ko seen seen TV xamoo charge am de je parle des vrais hommes puissants yoo xam ne seen village case yi transformé ko en bâtiment mais ils ne le font pas ndax dafa am ñoo xam ne maintenir les gens dans la pauvreté moom moo leen di gënal ma dem ci beneen euh, point buy wax ne il faut qu'on arrête un peu au Sénégal di jël relation di ko considérer ci richesse papa Mm. parce que papa yow boo nekkee sama nijaay. Mm. balaa may màgg am mbaa ma màgg siw nijaay nga ci man. am naa fu ma jaar ci àdduna. Mm. lu tax léegi ku am bëri mbokk faal. mbokk boo mësta woon gis. boo kum am mbaa siw. yaakaar ci yow rek. am non yaakaar sax sori na mbokk mbaa siw. Mm-hmm. am mbaa siw. nga gis ba gis mbokk boo dul gis. faal mais mbokk procédure la moo tax ma ne relation yi waruñu ko basé ci richesse. soo jëlee yaakaar fële teg Sophie damaa yaakaar ne sa nijaay dafa am ci yow rôle balaa ngay doon Safia Diatta di toog ci ci chaise bi mhm. ak balaa muy am ci yow yaakaar parfaitement mooy rôle nijaay bi mu war a am ci yow pour xool ndax ça gis nga ça va boobu ma leen doon wax ci immigré day ñëwaat tey ci waaye am am yi mhm. avant ngay am wala avant ngay siw mbokk war naa war a mën a xool noo toogee papa ah. ndax yaa ngi si jàmm procédure la balaa am am bi ndaw mi léegi yow da bëgg ne jamet ci viiwu nit ki rek juste parce que dégg nga ne am na léegi wala siw na déedéet mbokk dañ koy nourrir faal mhm. dañ koy dund nit ki ca ba dara dul dara nga koy wan ne sa mbokk la mhm. di ko laaj ndax mi ngi ci jàmm c'est pas parce que Père Mbaye Ngoné mi ngi toog tey ci chaise bi que nga koy considérer la considération ne doit pas base sur la richesse te aujourd'hui bëri na ñuy am ñu leen wax ne dañ leen di jànni kenn jànniwu leen ils ont été là mais au mauvais moment mooy ne balaa ñëw mën a taxaw euh, euh, euh, richesse am te sax ndeysaan dañuy bàyyi ba nga am soo ndeyale yeeg magale yi commencé mooy cër bi ma doon wax ne dañ la ko war a jox soo bul reewaay balaa dara muy dara lu tax ñu laa war a di magale ka ndayale ka euh, jox considération ca ba nga amee waa ana mbokk ana deret mm-hmm. am na nag ñu lay tuddee doom dara dul dara démb bëri na woon ci yéen ndeysaan ah, ah, ñu ngay tuddee doom ndax jikko ji ndax jikko ji mais léegi on considère les ci bu ñu matalee wala bu ñu yaakaaree ne nit ki mëtal na kon papa nañu ak valise yi nañu delluwaat ci base bi mhm. bu ñu wax kase kii am nañu delluwaat ci li ñuy woowee les vraies relations de la vie bi nga xamante ni warul basé ci am am dafa war a basé ci deret war a basé ci ci leneen ak leneen ngor ngor nag falaay daane lee soo ngor kenn du ko mere ci alalam papa man damaa diñ c'est très important gor kenn du ko mere gor du mere nit ci alalam bokk te loolu dafay bëri Sénégal ay Sénégal la waroon na laa mën a dimbali c'est pas forcé ñëw ci xam nga lu tax ce que tu peux considérer comme richesse mën na bañ a nekk comme tel baal ma de prendre exemple sur toi c'est pas toi mais damay wax ne benn Safia Diatta mm-hmm. mën na am mais quatre-vingt-dix mille personnes de sa famille nekk ci charge am Benoît mm-hmm. nga bëgg ko mere parce que dangaa ñëw ñaan ko mayu la te heure bu xëyee di génne dépense ci biir këram loolu laay waxee góor du mere nit ci alalam. Mhm. ndax xamoo ay te même nit mooy wëlbatikuwaat papa naan kii ak a bon xamoo charge am. ndax la la sa bët may.